Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن من الأصول العظيمة التي هي من أصول ديننا اللواء للإسلام وأهله والبراءة من الكفر وأهله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy xukmu atashabbuh bil kuffaari fi ayaadihim ate jullit bi nga xam ne mooy nuru nuru lu yéeféer yi ci seeni feet jullit boobu lan mooy ateem mbokk jullit yi bokk na ci cosaan yu màgg yu rëy yoo xam ne ci suñu cosaanu diine la bokk ca reen ya mooy alliwaau lil islaami wa ahli mooy jullit buy far jullit buy bokk day far ci islaam buy bokk day bokk ak islaam daa bokk ci cosaanu diine jii di islaam loolu ñuy wax alwala te mooy far te yàlla li mu bëgg ci ñun ak yonent mooy ñu far ak islaam loolu la ñu sant ñu far ak diine waaye bokk na ci li ñu sant mooy albaraa min al kuffaar mooy nanu bàyyi yéeféer yi nañu denc ñoom ba set wicc loolu la ñu diine sant mu ne bokk na ci li gën a rëy ci ponk yooyu tilkal baraa min al kuffaari aw min al kufri wa ahli bokk na ci keneen yooyu màgg yooyu nga xam ne dañ ñu sant nañu denc ñoom ñooñu nga xam ne ay yéeféer lañ ak seeni ñoñ mooy tamayizul muslim an ahlil kufri islaam sax dafa wax nañ ñu ràññee ñun ak ñoom bu ñu bokk bu ñu bokk dara sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moom yàlla da kaa yónni woon pour mu wuuteeg yahud ak nasaraan ci lépp fekk na leen ñuy feetu samedi ak dimanche mu jël ajjuma mu fekk leen ñuy wàññi seeni sikkim di ko wat ak di bàyyi seeni naanu mooy mustaas yi mu ñëw ne yéen jullit ñi bàyyi leen sikkim yi wàññi leen mustaas yi ngeen wuuteeg ñoom mu ñëw fekk leen bu ñuy julli ñoom yahud yi dañu yor benn béjjën bu ñuy ëf nasaraan yi bu ñuy julli benn jóolóoli lañ yor benn cloche dañ koy fëgg moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu indi nodd mu fekk leen seeni jigéen bu ñu gisee baax duñu lekkandoog ñoom duñu sëy ak ñoom dañ leen di jël denc leen ci ginnaaw kër yi moom mu ñëw ne isna'u kulla shay illa al jima def leen lépp ba mu des sëy nekk leen ak soxna si ci biir kër gi ànd leen ak moom fanaanoo leen ak ñoom bokk leen lal def leen lépp ak ñoom ba mu des sëy kon mu ñëw fekk leen ñuy jublu masjidul aqsa ci seeni julli mu ñëw daal di wëlbateeku julli masjidul haram daal di fay jublu yahudi sax dañ doon wax ne ñun de waa ji def ñoo jaaxal moom saa yu déggee ñuy def dara rek day def leneen mu ne waaw yàlla def maa yónni pour ma wuuteeg yéen kon sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bu fekkoon tey dafa ñëw ci Sénégal mu fekk julli ñi di feetu 24 décembre ak 31 ak 1er janvier kon dana xam dana wax ne sama message bi jàllul ci réew mi kon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf kaa yónni pour mu wuuteeg yahud ak nasaraan waaye jullit bi ci wuute boobu muy wuuteeg ñoom daf ci war a am mbégte daf ci war a am lu sedd xolam daf ci war a tedd daf ko war a tiitaroo bi diinihi wa faxrihi bi islaamihi jullit dafa war a tiitaroo islaam dañoo am benn xale te sunu école la nekk jarne xale bi ñeenti at la am dañ leen jàngal di leen waar di leen waar pour ñu bañ a feetu 24 pour jour la 25 na ñëpp jàng si xale bi bi mu xëyee suba jouru 25 mu gis kër gi ñëpp kenn jàngiwul moom kenn la ñu yee fajar sang ko solal ko yére defal ko ndékki daal di koy wékkal saakam ne ko kaay jàngi xale bi papaam nee na bi xale bi génnee ubbi buntu kër gi magam yaa ngi ci kaw ci balcon bi ànd ak seen toog ak seen papa xale bi daal di génn ci buntu kër gi ñoom ñu tiim ko ñu gis ko mu ngi wékku saakam mi ngi dog mu ngi dem mag ñi daal di yuuxu ci kaw ne ko amuleen feet amuleen feet xale bi daal di jullu jublu jàkkaarloo ñoom daal di yëkkati ñaar loxoom ne leen ñun ay jullit lañu xale bu am 4 ans. mu yëkkati ñaari loxoom di seen papa ji ci kaw fa mu nekk ci balcon bi mu ne ko ñun ay jullit lañu papa ji nee na sama bëj yi taa sama rongoñ bëgg a wadd mu nee na ma bëgg a daanu ci balcon bi ma jàppandu daal di toog ci sees bi parce que benn kurpeñ la ma dóor ci sama dënn bi loolu ñun ñëpp ñun ñëpp mbokk yi noonu la ñu war a fare ak l'islam te buñ ciy far dañ ci am kontante dañuy gëm ne islaam moo ñu tere ñu bàyyi moo ñu wax ñu def waaye gis nga guddi yi nu nekk tey bëri na fii ay kanam yu ma jàkkaarloo fii ci jumaa ji ñu ngi denc ginaar gu ñu nar a rey 24 waaw gàddu nañ seen sijaada nag ñëw jumaa fekk ñu ngi préparé 24 24 ñan ñoo ko moom ci ban diine la bokk ban xew-xew moo ci xewoon ci lislaam ñenn ñi boo leen ne premier janvier ñu ne non loolu bisu année bi la année bi ñépp a ko bokk waaw année bi encore année ñan la dafa am mbir yoo xam ne dafa war a leer ci ñun ne du ci lislaam kenn waru cee wuyu ji cheikh al islam ibnu taymiya dafay wax ci téere boobu tudd iqtida sirat al mustaqim nee na weer wi kenn waru cee mayo kado même boo amoon xarit boo bëgg nga jënd kado bu ko may nee na denc ko ba weer wi passé bis boo mayee kado ci weer wi bokk nga ci feet bi yow dimbali nga leen waa léegi jullit yi ñuy wokkaa leen ngeen jël kado nag jullit yi nga xam ne ñooy feetu seen kër yi nag mu ne ab jullit dafa war a tiitoroo l'islam mahma kaanat ahwaalul kuffaar ñenn ñi dañ naan l'islam tey daal suñu fi toogee dañuy wéet duñu am lu ñu def nañu def nangam ak nangam pour déedéet l'islam jamono ju mu néewee doole jamono ju mu amee doole yem du d'accord ab jullit mu bàyyi li ko yàlla wax ak yonent dem ci leneen rawatina julit bi bañ ko teree mu toppandoo leen ci jamono ju mu mën a nekk li anna al muslim bi istitaatihi atamayuz bi diinihi wal faxri bi islaami hatta fi haali daafihi wa taaxurihi jullit tey lislaam ni mu néewee doole ci adduna bi nga xam ne dañ koo noot wala ni mu néewee doole sax ci Sénégal nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ mais ñëpp dañ leen a noot amuñu doole loolu warul tax ñu dem xaaraani warul tax ñu dem toppandoo ji warul tax ngay laye ne man damaa bëgg a téye samay doom suñu kër sama kër foog ma defal leen benn fête déedéet say doom li la waar ba nga yëg ne lii du sa fête jaaraleel foofu say doom xanaa xamu leen ne xale yi ñoo gën a gaaw a jël mag ñi xale yi ngeen di gis su ma daan xëy dama daan ànd ak ñaari xale bu ñuy dox yenn saa yi ñu gis benn panneau publicité ñu def ci waykat yi wala suñ ma ne kii kan la ma ne ñii ci ñuy yàq diine ji lañ bokk ñu bon ñii lañ ñii ñu bon lañ xale yi mujj nañ bu ñu jibee panneau publicité bi ñu sëgg su ma leen ne lan la ñu ne ñu bon ñii la ñuy bañ ñu xool ñu parce que xale dafa gaaw a jël kon nañuy fexe suñu doom yi ñu yar leen ba nga xam ne dañuy xam ne feet yi bokkuñ ci waaye maal asaf tey ci Sénégal su jullit ñi xumbalul woon 24 xumbaluñu 31 xumbaluñu 1er janvier kon kenn du yëg lu xew mais mal asaf ñun ñooy dem xaaraani ji li waa ji waxoon yéen a ngi nii saa yu ñu amee feet yéen a ñëw naan sàngara si ba mu jeex di ko xëccuug ñun dimbali leen ñu toog leen ba ngeen xew la ngeen ngeen ngeen ah xoolal loolu sunu sàngara si mënta doy ndax yéen jullit yi di ngeen ñoo mënta dimbali xam nga loolu bu ko am nasaraan waxee ndeysaan waaye nag tey islam moo néew doole ndaw si tuub fii barki démb démb dama ko gis ma ne ko mbaa am yaa ngi si jàmm mbaa kenn créelu la mu ne ma ah kay am naa problème ma ne ko lan la mu ne sama benn papa bu ma nekkal kër ga def maa mere ma ne ko xanaa du jullit mu ne ma ah kay jullit la de waaye li ma tuub daf cee mer waaw ñun jullit di foofu lañ nekk mooy jullit mooy ki nga xam ne tey su ko yàlla nee day mer bu ko yonent bi waxee day mer keneen ku ko wax nag mu kontaan ah yàlla ak yonent moom vraiment mënatuñoo am ci ab jullit ci Sénégal dara mbokk jullit yi ab jullit na gëm diineem na ko tiitaroo yàlla subhanahu wa taala loolu la wax ci alquran mu ne ab jullit day tiitaroo lislaam yàlla wax ci suratu fussilat aaya fanweer ak ñett mu ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin gis nga kii daf ko tiitaroo dafa def lu baax ba pare liggéey liggéey bu rafet ba ñépp di wax mu ne waaye nag lii ngeen gis ma def yépp nag jullit laa gis nga mu ngi tiitaroo lislaam moom waa ji innani min almuslimin man ci jullit yi laa bokk jullit day tiitaroo diineem mbokk yi alfaxru bi diini tiitaroo ko kontaan ci waaye importance bi jullit war a tiitaroo diine bàyyi kufru loolu sunu boroom subhaanahu wa taala moo ñu ci wax ci alquran bés bu nekk yàlla mu ne ñu yéen a ngi taxaw sama kanam lu ëpp juróom-ñaari yoon lu ëpp juróomi yoon ci bis bi di wax ye yow yàlla yal na ñu teg ci siraatal mustaqim yoonu gaa yooyu nga xam ne ñooñu nga kontaan yow yàlla nga moytul ñu yoonu ñu réer ñi ak yoonu ñi nga mere chaque jour jullit wax ne ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala dallin chaque jour nga wax ko suba di nga ko wax ñaari yoon tisbaar ñeent tàkkusaan ñeent timis ñett gée ñeent naafila yi ñëwagul yàlla teg ma ci yoon wu jub bi yoonu gaa yooyu nga xam ne ñooñu nga mayoon ay xéewal nga moytu ma soril ma yoonu ñu réer ñi ak yoonu ñi nga mere ñooñu ñuy ñaan bu ñu yàlla teg ci yoon woowu ñooñu ñoo moom feet yi wala du ñoo ñooy ahlul kitab ñenn ñi yàlla mu ne wala dallin gayril maghdub mooy alyahud wala dallin mooy nasara ñooñu ñoo moom feet yi mbokk yi feet yi ñuy xëccoog ñoom ñoom ñoo ko moom te yaa ngi taxaw naan yàlla moytul ma yoon boobu waaw nooy taxawee génn ci jàkka ji ne yàlla yal nag ma moytul yoon woowu ba pare nga génn dem ci sa ngunu ginaar xëcc rend ginaar gi beneen bi mooy atte ki nga xam ne jouru 24 dafa jël ginaar rendi ko lan mooy atteem ci islam kooku yàlla da kaa rëbb yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te rendulul yàlla rendi jaamu la rendi jaamu la tabaski boo rendee doo am bakkaar da ngay am tiyaaba parce que yàlla moo la ko sant soo amee doom nga rendil ko xar doo am bakkaar da ngay am tiyaaba parce que yàlla moo la ko sant soo amee gan nga rendil ko da ngay am tiyaaba doo am bakkaar parce que diine moo la ko sant sooy takk soxna nga rendi da ngay am tiyaaba parce que diine moo la ko sant waaye yii maw lim bu fee bu weesoo saa yoo rendee dinañ la laaj ëllëg lu tax nga rendi lii soo rendee ginaar 24 wala jour 31 wala anniversaire wala 1er janvier wala yeneen caaxaan yi am nga dem jàpp benn jaamu yàlla rendi ko suba yàlla dina la kii nga rey lu tax nga rey ko su boobaa lan ngay tontu jàngeen ci alquran yàlla mu ne wa ma uhilla bihi li gayrillah loo xam ne dañ koo rendi te rendi luñ ko yàlla kenn war ko lekk dafa médd moo tax yenn saa yi nga gis koo xam ne danaan man de wax dëgg yàlla feetuma waaye dañ maa yekkal bëgg a lekk rek wala yenn saa yi nga gis ku ne man de sama kër laa toog ñu indil ma ngalax sénégalais yi seen problème yëpp lekk la lekk problème mu lekk gis nga am na feet yoo xam ne boo amul woon lekk kenn du ci bokk waaye comme am na lekk munoo fexe ba gars yi dinañ lekk nan nan yàlla dimbali problème yi xoolal dëj dëj da ngay gis ku dee ñu dem seet du ñu ut nag bu yooy ngan ndammaami nag rey ko lekk ba suur dëj yi sax da ngay gis ñaata cin cinquante cin lekk rek moom mooy suñu problème xam ngeen ne ku am naqar warta lekk keroog ba waa kër jaafar amee naqar lekkuñu yonent bi la doon xool yërëm leen daan ne isna'u li aala jaafar taaman fa inna lahum ma yusghiluhum waay waay waay waay jàppale leen tey waa kër jaafar na ngeen leen may ci seen kër togg yi ngeen togg na ngeen leen ci yekkal ndax tey ñoom dañoo occupé kon ku am xew waroo togg ku am dëj mais maa la saf fii gars yi dañuy cotiser te bi nga feebaree kenn jëndul aspirine kenn jëndul paracétamol kenn seet si wula ñu bàyyi ba nga dee ñu ñëw di cotiser fu nag ngandee moom la ñu dem jëli borom bi nee na tabaraka wa taala comme yéen a ngi ñaan naan yal naa leen musal ci almaxdub alayhim ak wala dallin mu ne texte yi ñëw ci alquran ak sunna di ñu tere ñu ñu nuroog yahut ak nasaraan bañ leen topp texte yooyu kenn mënu koo compter mbokk yi même ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom tabaraka wa taala wax na ci suratul jaasiya aya 18 mu ne summa jaalnaaka ala sariatin min al amri fattabiha wala tattabi ahwa alladina la yaalamuun aaya bi su ko julli di déggoon rek islaam taxaw borom bi moo wax ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko summa jaalnaaka ala sharia man yàlla maa la teg yow muhammad ci sharia ci sama yoon wi ma bëgg laa la teg minal amri ci sama mbir sharia bii ñuy dund ndeke kon yonent bi tegu ci boppam mais yàlla moo ko ci teg summa jaalnaaka ala shariatin minal amri maa la ci teg yàlla yemu ci mu ne ko fattabiha topp ko de sharia bi topp ko fii looy gis ñuy tiitaroo ñun suñu yoon ci sharia man sama yoon ci sharia man luñ ma wax ma def ma def sharia sama yoon nekk pourtant yonent bi bi ko yàlla tegee sharia lan la ko wax fattabiha topp ko mu ne wala tattabi ahwa alladina la yaalamuun bul topp ñi nga xam ne xamuñu ñooñu li doy waar sax yàlla dana ko wala tattabi ahwa bul topp bànneex alladina la yaalamuun ñi xamul bul topp bànneex ñu xamul di organiser di la woo ah kaay sawaay yow xam nga sunu mbokk nga nangam ak nangam soo gisee lii yenn saa yi sax ñu tuddee la ko pour nga dem yeneen bi lan la ko yàlla wax wala tattabi bul topp ahwa alladina la yaalamuun bànneexu ñi nga xam ne xamuñu ñooñu xamuñu yow xam nga bul def lii rek doy na ne jullit dafa war a wuute yahut ak nasaraan sunu borom waxaat ko ci suratu raad aya 37 borom bi ne ko wala in ittabaata ahwaahum baada ma jaaka min al ilmi ma laka min allah min waliyin wala waaq allahu akbar giñ naa ci sama màggaay man yàlla yow muhammad alayhi salaatu wasalaam li ma lay bëgg bëgg bëgg li ma lay gënal ci ñépp bis boo toppee seen bànneex yi ginnaaw ba dëgg gi leeree xam-xam bu leer nekk say loxo nga topp leen na nga yëg ne ëllëg amoo ku la mun a musal ci yàlla waaw kooku muhammad lañ ko wax de ca suratul baqara yàlla mu ne ko wala in ittabaata ahwaahum min baadi ma jaaka min al ilmi ma laka min allah min waliyin wala nasir bis boo reppee yow muhammad ba nga topp bànneexu gaa yii nga bàyyi li ma indi nga topp leen ëllëg ci yàlla amoo ku lay dimbali ma laka min allah min wali amoo koy faral wala nasir amoo ku lay dimbali ëllëg kooku kan lañ wax wax jooju sallallahu alayhi wa sallam kon ñun nag su fekkee muhammad la yàlla joxoñ baaraam wax ko wax ji ne ko mooy tandikul bul topp bànneexu gaa yi bul fekk rek loo xam ne dañ koo organiser naan nangam ak nangam ba nga bàyyi li ma la wax nga dem topp ñooñu sunu boroom wax na ko ci suratu Ali Imran aya 5 mu ne ko wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum min albayinat loolu yàlla ko wax ngalawaay bu leen nekk wala takunu bu leen nekk loolu amr la amr boo xam ne dafa ànd ak nahiyu ñaar la boole tere bu ànd ak ndigal wala takunu bu leen nekk kallazina tafarraqu comme gaa yi nga xam ne dañoo tàqalikoo wuute waxtalafu yemuñ ci tàqalikoo waaye dañoo wuute tàqalikoo ba pare wuute kañ lañ def loolu min baadi ma jaahumul bayinaat ginnaaw ba dëgg gi leeree kon leer na nañ beneen bu gën a ruslu gën a doy waar ci 24 chaque jour ñu wax fii ne li ñu wax 24 kuñ ko waxoon sa papa doo jënd ginaar doo ko rey kuñ ko waxoon sa kilifa diine wala président réew buñ ko waxoon réew moom duñ feetu loolu lañ wax yàlla tey kenn du ci ñun buñ ko ne woon sa baay de koñ bële dafay ngénte te amu fa jabar luñ ko wax tey bu ñu waxoon benn kilifa diine day ngénte koñ sangam te amu fa jabar luñ ko wax loolu lañ wax yàlla de moo tax jinne yi ba ñu déggee wax ji allahu akbar dañoo yuuxu naan wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada jinne yi dañoo dañoo weddi wa annahu taala ñu ne kawe na jaddu rabbina sunu màggaayu boroom mattaxasa saahiba wala walada yàlla jomb na muy am jabar waxuma la ak doom jabar ak doom ku koy am da ngaa manqué jabar ak doom ku ko am ku ne ku manqué nga ku manqué ngay fekk mu am jabar bëgg lu ko mottali bëgg bànneex mu am doom di ci yëg mbégte di tiitaru di fëgg dënam kii sama doom la yàlla moom jomb na loolu al imaamul baqillaani day nettali zamaxsari zamaxsari day nettali ci téeram boobu tafsir bi mu ne al imaamul baqala baqillaani dafa dugg ci benn église jour 24 bi mu ne tëll rek gaay na ko yow de bokkoo fi yow sa col gi nga sol sa melokaan bi bokkoo fi lu la fi indi tey nag doo fi génn lu dul ñu laaj la ay laaj soo ko waxul soo ko tontul dañ lay rey ñu ne ko laaj bi ñu lay njëkk a laaj kii lañ lay booleel mu laaj la ko waa ji ñëw taxaw ne ko ci xam-xam laa lay laaj bul ma tontu ci xel ci xam-xam mu ne ko laajal waa ji ne ko nee ngeen Muhammad mës na ñaan yàlla weer wi xar ñaar mu ne ko waaw mu ne ko lu tax waa Màkka rek a ko gis mu ne ko yaa ma ne tontu la ci xam-xam mu ne waaw mu ne loolu ci xam-xam yàlla wax ne iqtarabati saa wan saqal qamar yowmal xiyaam jot na ndax weer wi xar na ñaar mu ne ko yéen nag nee ngeen Isaa dafa ñaan benn bool wàcc jóge kaw asamaan benn palaat benn taabul bu rëy mu am lekk ñu lekk mu ne waaw mu ne ko ñaar yépp am na bee mooy suratul inshiqaq bii mooy suratul maida waaye li may laaj mooy yow mii keroog ba isaa ñaanee lu tax lekkoo ci waa jooju daal dem toogi keneen ñëw ne ko comme kee gis na ne dafa ne laaj naa la ci xam-xam bu ma tontu ci xel mu ne ko man ci xel laa lay laaj bul ma tontu ci xam-xam mu ne ko luy sa laaj mu ne ko jigéen ji dafa am jëkkër amul doom nasaraan bi mooy laaj nee na waa jullit bi yéen dañuy tuumaal seen yonent soxnaam dañ koy tuumaal njaaloo loolu dafa doy waar de soxna yonent ñu koy tuumaal njaaloo imaam ne ko mun naa la tontu ci xel wala ci xam-xam mu ne ko ci xel mu ne ko ci xel soxna soo xam ne amul borom kër am doom ki am borom kër amul doom ñoom ñaar bu ñuy wax njaaloo kan moo njaaloo soxna si amul borom kër amul jëkkër mu am doom kii nag dafa am borom kër mais amul doom ñoom ñaar su ñuy wax njaaloo ku njaaloo ki amul borom kër mu ne ko ñaar yëpp benn amu ci kan la ñuy wax dafa am borom kër njaaloo mooy Aïcha yàlla wax ci suratul ahzab inna alladina jaa'u bil ifki usbatun minkum ñi kerye fen yi benn mbooloo la ci naafiq Madina bu nawar ci keneen ki nga xam ne amul borom kër am doom mooy Maryam yàlla moo ne inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kooku daa dem toogi keneen ñëw ne ko isa atharu min muhammad isa moo gën a laab muhammad moo gën a set borom xam-xam bi ne ko limaada lu tax mu ne ko muhammad dafa amoon ay soxna sëy dafa salte isa musta am soxna moo tax dafa laab al imam baqilaa ne ko kon doom ji moo gën a set baayam isa atharu min abihi kon ndax yéen ne ngeen yàllaay baayam kon isa moo gën a laab yàlla kon nga bëgg a wax labbe bi daal di yuuxu ne ko qulta xaqan wa nataqta sidqan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy dëgg kon ñun naka la ñuy jëlee sunu bopp laxas ba mu dëgër dem di jébbali yahud ak nasaraan aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل عليه قول الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سنو بروم jalla jalaaluhu moo nuy wax ay melokaan yoo xam ne loolu rek war na tax waruñu topp yahudi ak nasaraan yi di leen roy sunu borom nee na wala yakunu kalladina utul kitab bu leen mel ne gaa yi nga xam ne démb dañ leen joxoon ay téere ñooñu ñooy yahud ak nasaraan yi yàllaa leen joxoon injil ak tawraat yàlla mu ne bu leen mel ni ñoom ñoom dama leen joxoon ay téere mbir ma daal di yàgg fa taala alayhimul amad ñu dem diir ba yàgg ñu sànq téere ya dugg ci seen bànneex borom bi nee na fa qasat qulubuhum ñu dem ba seen xol yi wow koŋ ku leen waxati yàlla nee na du ñu dégg borom bi li doy waar lu mu ci teg mu ne wa kathiru minhum fasiqun ñi ëpp ci ñoom ay kàccoor lañ waaye yàlla dina joxoñ ay nit nit ñi ay kàccoor lañ yow nga leen di roy di leen toppandoo wala am na ku gën a dëggu yàlla ay wax mbokk jullit yi wa ma min shakk anna fi musaabatihim min azami dalail ala mawaddatihim wa mahabbatihim wallahi képp koo gis muy fête 24 ak 31 décembre ak 1er janvier yëgal ne boo ubbee xolam fekk fa mu gëm yahud ak nasaraan mu bëgg leen mu bëgg leen jàng ngeen suratul mujaadala yàlla ba muy tagg sahaaba ba lan la wax abu ubayda amir ibnul jarrah keroog ca gazwatu badr ba mu gëmee ne yonent bi mooy rayukaayam yonent bi la yàlla yónni ci moom mu dugg ci lislaam armée quraish ak armée yonent bi daal di jàkkaarloo abu ubayda gis na baayam a ngi ci rang wu yéeféer yi baay ji gis na abu ubayda mu ngi nele ci rang wu jullit yi baay ji ne sama doom ji comme def maa weddi moom rek laay rey kii dama koy rey tey abu ubayda bu dawalee fasam jublu beneen côté baay ji daal di tourner fas bi topp abu ubayda abu ubayda dem nday joor baa ji topp ko mu wàññeeku mu dem càmmoñ baa ji topp ko mu wàññeeku mu ñëw ci digg bi baa ji topp ko mu jël jaasi ji dagg bopp bi nit ñi daal di yuuxu abu ubayda rey na baayam abu ubayda def na musiba ñu ñëw ci yonent bi rek jibril wàcc allahu akbar yàlla mu ne laa tajidu qawman yuminuna billah wal yawmi al axir yuwaadduuna man haada allah wa rasula doo fekk mukk gëm yàlla di bëgg di sopp di mbokkoo ak ku weddi yàlla doo ko fekk mukk laa tajid la yàlla wax doo fekk mukk qawman yuminuna billah ay nit yu gëm yàlla mooy seen boroom muhammad la yàlla yónni islam mooy seen diine alquran mooy seen téere kaaba mooy seen penku doo fekk mukk ñuy bëggante ak ku gëmul yàlla gëmul yonent su yàlla yemoon foofu doy na su yàlla yemoon ci aaya boobu foofu rek doy na sëkk waaye yàlla xoolal dafa indi ñi la jege mu ne donte ne seeni baay la walaw kaana abaahum aw abnaahum aw asiratuhum donte ne seeni baay la noonu la abu ubayda def la ñuy def donte ne seeni doom la ni abu ubayda def la ñuy def donte ne seeni famille la ni abu ubayda la def la ñuy def sunu borom ne ñooñu ulaika kataba fi qulubihim al iman yàlla dugal ci seen xol yi ngëm yàlla ba mu sax fa këng moo tax yàlla gënal leen lu dul yàlla musidɓe fulɓe caggal yettude allah e juulde nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno juulɗo est ce que omo foti nandude e ɓeɗo noddirteɓe yahud e ɓeɗo noddirteɓe annasara holko woni ñawore oɗo juulɗo yaaɗo ina tawoya feetuji ɗiɗo ganduɗa wona feet islam allah koko haɗi ɗum e alquran nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koko haɗi en jangi e sunna nelaɗo wi man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala mo nandi e yimɓe nelaɗo wi ane maɓɓe poti en jangi ñalawma fof eɗen daro e yeesa allah subhanahu wa taala eɗen mbiya ihdina sirata almustaqim allah ya fewnu min e laawol poccigol ngol holngol laawol sirata alladina an'amta alayhim laawol ɓeeɗo ɓe annduɗa ko ɓen tellinnoɗa e ɗum e dow maɓɓe nemaji ɗi gasata woni annabaɓe an allah ya dandam e ngol ɗo laawol ɗiɗo laaɓi ɗi ngannduɗa rewɓe heen ɓe woni majjuɓe ɓe eɓe tikkanɗa ɓe holɓe allah tikkani woni yahud ɗum tagi allah wiɓe gayri lmagdub holko tagi allah tikkani ɓe allah koko totti ɓe deftere ɓe weddi deftere nde ɓe sala ɓe sali ɓe wi ɓe gollata deftere nde allah wi masalu lladina hummilu tawrat summa lam yahmiluha ka masali lhimar ɓeɗo ɓe annduɗami tottiɓe deftere ɓe sali ɓe wi ɓe gollata deftere nde allah wi kamɓe e bamɗi kamɓe nandi ɓe holko tagi allah ɓe wiya koɓe majjuɓe wala dallin saabu ɓe darni allah ɓiɗɗo ɓe wi allah ina dañi ɓiɗɗo allahu akbar nelaɗo men mouhammad sallallah sallam o jooɗi ha ɓoy tan o haali hadisul qursi o wi allah wi satamani ibnu adam bi adama ƴattima kam min allah te wama yambagi lahu an yastumani ha nani e ɓi adama ina ƴatto kam min allah ɓe wimo nelaɗo holno neɗɗo ƴattorto allah o wi allah wi yimɓe ɓe ɓe wi mi jibinite mi ala debbo sa wiyama a dañi ɓinguel ta ala debbo holko wiyeɗa hande sen haalino kilifa men gooto ko bam men walla walla ko ceerno men walla ko mawɗo men gooto wiɗen mo oɗo dey leegal kaza omo inna toon tewala ɓiɗɗo holko wiɗen oɗon mawɗo holo men holo men hande julɗo ɗo e oɗo juma yiɗɗo mawɗo makko waya noon ay goto yiɗa ɗum noon kon yiɗa eɗen haala ɗum allah a ɓe wi allah dañi ɓiɗɗo allahu akbar allah wi mi ala debbo mi ala gonde ɗiɗo holno dañirtugu debbo artiren haqqillaji e koye men sen duttimaga galleji kalden e ɓiɓɓe men kalden e rewɓe men kalden e bandiraɓen kalden e musid- musidal ngal ganden oɗo ɗiɗo feytuji wondi e yeeso men en ngala hen laabi en ngala hen laabi allah noddani en hen nelaɗo noddani en mbokk yi buñ julle ba pare comme niñ ko baaxoo def léeg-léeg buñ julle ba pare danañ taxaw fii di ñaanal ay mbokk ndimbal loolu mbokk yi lu jaadu la ab jullit bu sonnee nekk feebar am ay jafe-jafe day tàllal yàlla loxo jublu ci ay mbokk jullitam suñu paree am na fi ay mbokk yoo xam ne dañoo am ay tolof tolof ay feebar ay ordonnance yoo xam ne tey ku nekk xam ngeen dëkk bi waaye benn jullit su jullit yi sotee aajoom rek gañe ko jullit bu mu mën a doon boo amee aajo su jullit ñi sotee aajo bi rek gañe aajo boobu kon ñoo ngi leen di fàttali incha allah buñ jullee ba pare képp ku mën a dimbali mbokk yooyu yal na yàlla defal la tawfiq allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر